وثقت برب العرش nu fas yéene wéyal ñaareelu xaaj bi ci lenn ci seede yi nga xam ne lenn ci mag ñi def nañ ko ci sëriñ bu mag bi sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ci Irwaa un Nadim ne bokk na ci ñi seede lu rafet ci sëriñ Tuuba ku ñuy wax al cheikh alxaaju ibrahimu al baghdadiyu radiallahu taala anhu mu bokkoon ci araab yi nga xam ne dañ daan jommale ci xam-xam bu bari ak xel mu yaatu lool te gis ku mel ni moom ci xam-xam jafe woon na lool ci ay jamonoom moom nag ma nga bàyyi ko woon Bagdad sëñ Mod Lamin nee na sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko nettali ne ko bi mu nekkee ndaw moom sëriñ bi mas naa gis alxaaju ibrahima moomu ci kër ku ñuy wax sëriñ Boubacar Fall pend yére booba moom sëriñ bi mi ngi ànd ak waajuram Maam Mor Anta Sali mu nekkandoo woon faak xaalima jaxate kala ak Lat Joor Jóob sëriñ Tuubaa na booba mi ngi gis alxaaju ibrahim mi ngi toog ak ñaari kilifa yooyu ci benn lal di waxtaan ak ñoom foofee ca kër sëñ Boubacar Fall mu ne booba nag mu ngi leen di jommal ci xeeti xam-xam yu bari ak ay xikam yu bari mu leen koy nettali ba mujj sax xaalima jaxate kalam daa mel ne mënatul a téye boppam ngir ne xam-xam bi nga xam ne mi ngi bàyyikoo ci ibrahim moomu fi saasa rek mu dal di yónnee ci man daal ne nañu woo ahmadu bamba mu ñëw bind xam-xam bu am solo bii naar bi di wax ak bayit yu am solo yi muy nettali ndax loolu dina tax xam-xam bi du sànku sëriñ bi nee na bi ma bi di wax may bind muy wax may bind ba bind naa fa keroog lu baree baree baree bari ci ay bayit nee na maa ngi dégg sama wayjur sëñ Mor Anta Sali mu yéemu lool ci naar bi ak ni mu mokkalee ma ngay wax naan mësumaa gis ku baree nii ak mokkal ku dul Alaaji Omar Fuutiyu radiyallahu anhu ndax moom naar bi de foo ko fekk rek ma ngay tari naan Buxaari yu nee na ak muslim nee na sëriñ bi nee na ca jataay ba sax moom naar bi laaj nañ ko fa ne ko ndax xam nga damel bii toog num tudd booba dañoo jàppoon bi xamut Lat Joor naar bi tontu leen ne leen waaw xam naa ok daal di jaar ca tur wa loola it defoon na te lool ci Lat Joor ngir jàppoon na ne alxaaju Ibrahima moom a xamu ko sëriñ Mat Laamin nee na ginnaaw lii nag toggaat nañu lu mat ñaar fukki at mbaalu ko jege sëriñ Tuubaa jugee ca tukkib géej ga gisewaat na ak naar boobu alxaaju Ibrahima sëriñ bi di ko fàttali seen jotaay boobee ñu defoon keroog ca kër sëriñ Boubacar Fall Penda Yéeri mu yéemu ca lool ngir yàgg gi loolu yàgg ak ni ko Serigne Touba nettale te bàyyiwu ci dara bi mu koy nettale moom alxaaji Ibrahima moomu nag mujju ne jébbalu ci Serigne Touba te bokk na ci li sabab ak jébbaloom mooy daa mas a ànd ak Serigne Touba ab tukki boo xam ne keroog ñoom ñaar bokk yendu ci genn garab fekk boobu alxaaji ibrahim moom yàlla daa dogal da daan jëfandikoo poon maanaam da daan tox ci seen jataay boobu mu àndoon nag mook sëriñ bi naar bi daal di génnee poon mi muy jëfandikoo ak gënn gi ngir bëgg a tox daal di tàmbalee boxam poon bi ci ay tenqam te lépp nag mi ngi waxtaan ak sëriñ bu mag bi ci noonu rek ci la naar bi laaj sëñ bi ne ko waaw sëriñ bi mbirum tux moom ana loo ci xam bi mu ko ko laajee borom Tuubaa ne ko déet yow kay defal li ngay def rek te bañ a laaj naar bi ne ko dinaa la ko laaj ndax mbirum tuxkat daa bari ak wuute lool am nañu ko daganal am nañu ko araamal borom Tuubaa ne ko kon xëy na da nga ci am am lënt naar bi ne ko waaw lënt na ma de sëriñ bi ne ko xanaa jàngoo lax dara naar bi ne ko ah kay jàng naa ko lool sax sëñ Tuubaa ne ko ah laxdar yi moomu kat nee na men na mu kàllaf warul la def lum xamul àtteeb sharia ana lu teewoon nga topp loolu téere bi wax ba xam lan mooy àtteeb tux ci lislaam soog soog a def wala nga soog a bàyyi bi sëriñ Tuubaa waxee loolu naar bi naar bi dana tekk mel ne koo dem mënta wax ab diir loolu ko sëñ Tuubaa wax tamit sori ci moom lool mu sëgg fa diir bu yàgg ba mu yàgg mu siggi daal di wax sëriñ bi ne ko maa ngi lay seedeel ne bàyyi naa tox bis ni tey te yàlla rekk tax dal di jóg fa ma toogoon gas ba mu xóot suul ca mboolem jumtukaayu dox ya ma yoroon yépp suñ Modou Lamine nee na bisub keroog wala ca fan yooyu rek ci la naar bi jébbalu ci sëriñ Touba nee na bi mu jébbaloo nag moom naar bi dafa am lenn ci ay kilifa yoo xam ne dañ ko doon yedd naan ko waa yow lii num la dale yow ni nga toll ci xam-xam ak daraja ba noppi di jébbalu ci kawri bii kawri mooy nit ku ñuul biñ ko waxee loolu alxaaji Ibrahima tontu leen ne yéen de dafa mel ne a fàtte ne man mii de ba may jógee Baxdaad la ma fa jëlee woon mooy wut ku ma teg ci yoonu yàlla gis naa wàlli wu nekk nag ak borom xam-xam bu ne waaye li ma taxoon a jóg daal ci sëriñ Tuubaa mi dong laa ko gis loolu rek ka tax ma jaayanteeg moom bi mu leen waxee loolu ñoom it ñu xam ne la mu wax mooy dëgg ca moom ñu nangul ko ko mu ñëw ci sëriñ Tuubaa nag nettali ko yedd gi ko ay mbokkam doon yedd ci njëbbalam gi bi ko ko waxee sëriñ bi da koo tontu bindal ko ay bayit yu wayoon ca Masaalikul Jinaan في خدمة المطهر الجنان نكو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد ففي نظمنا مسالك الجنان في خدمة المطهر الجنان هذه الأبيات من ظنني غير خديم المصطفى فإنني أخدمه بمصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار الخرار والمنى والمنة من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدأ فغره الضلال والإضلال yanxaadu lii minhu bihil xalaalu sëriñ bi dane man seexul xadim de ku ma jàppee lenn lu dul xaadimu rasul muy jaamu yàlla buy liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ca na mu ko soobee moom yonent bi xamal ne umpali nga ma waaye man de damay sax ci liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ba ba may dugg àjjana gi nga xam ne mooy kërug sax di kërug xéwal sëriñ bi ne li ma liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ba mu gërëm ma képp ku defe ne man nga loolu sànku nga te ku la topp sànku ndax nii may liggéeyalee yonent bi sallallahu alayhi wa lu ma yàlla jagleel la te ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ci la ma sunu borom di wammatale yu dagan yi mu ne madaxtuhu xablu la daa li barwali madaxan wana an mithlihi kullu wali madaxtuhu madaxan la daa maayomba maxaayu biya wa kafa zanba madaxtuhu anda unaasi galwa madaxan kafaaniyal ada wal balwa sëriñ Tuubaa ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam tagg naa ko fu ne tagg naa ko ci Libreville tagg yoo xam ne benn wàlli yu mënu ko ñoom ñëpp lott nañ ci tagg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca maa yomba tagg yoo xam ne ci la yàlla fare ci man bépp ayib fegal ma ci bépp bàkkaar ba ma nekkee it ca nit yooyee ñuy woowe galwaa tagg naa fa sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne ci la ma yàlla fegalee bépp noon ak musiba ak balaa sëriñ bi daal wax naar bi ne ko de sallallahu alayhi wa sallam ci liggéey bi ma koy liggéeyal ci laa waxee lii daal ne minni ilayhi xidmatun xat laa zamat rawdatahu ilal xiyaami zimat duma deñ mukk di ko jébbal ay liggéey moom sallallahu alayhi wa sallam liggéey yoo xam ne da koy fekk ca rawdatoom ba ba keroog yowmal xiyaam muy liggéey boo xam ne bu sunu borom màggal la mu ne radiya anni sibtuhu aljilaani عليه رضوان الذي أعلاني رضي عني سبطه أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن رضي عني سبطه التيجاني عليه رضوان المبير الجاني رضي عني الخلفاء الأربعة حظ رضا المخربين المتبعة من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني يردا ليس يريم سرين Touba nee na ñett ñii di sëti yonent bi sallallahu alayhi ñooy borom tariixa suufiye ñoom ñëpp de gërëm nañ ma muy cheikh abdul qadir jeylaani cheikh ahmed at ak abul hasan ashadali radiallahu taala anhum naka noonu it ñeenti xalifa yi wut woon yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp gërëm nañ ma muy sayduna abubakar sayduna omar sayduna osman ak sayduna ali karamallahu wajhahu nee na it malaaka yi nga xam ne ñoom la yàlla jegeel boppam muy malaikatul muqarrabun ñoom ñëpp gërëm nañ ma ba mujj sax mu ne kon nag ku ma gërëmul ku ne xamal ne man yàlla sunu borom subhanahu wa taala gërëm na ma yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam gërëm na ma te gërëm nañ ma gërëm loo xam ne du dañ mukk sëriñ bi daaneelee way wi ñaan yàlla mi ko nangul ab liggéeyam te matal lam dëlante woon ak moom mu fayal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën ji fay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li muy wax naan jazal ilahul mustafa xayra jaza كما تقبل ووعدا أنجزا صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء الخاني كن فوف لا خنسي ديغيام شيخ محمد لامين نينا بي دي سيرن توبا جوخ الحاج ابراهيم سيرن بي داتي جونجو رك ني ني دون يد الحاج ابراهيم دانيو خمول كان موي سيرن توبا دغ رك تي غيناو نون لنجو امبلي نك لا غنون في نيوم موي نيان يالا ديمبالي لين با نيو خام تي موم استور دفنا واجا واخون يا من حقيقه امره لم ادري yaa layta chaari maa am amrihi sëñ ma Lamin mu ne ba tey toog naa ci jotaayub sëriñ Tuuba kenn ci naari gànnaar yi te bokk ci waa ndax ñu di ko wax as cheikh Mouhamad ibnu Habibi Rahman moom sax daan na def fu masaa dégg turu sëriñ Tuuba rek day gësëm bopp bi daal di ne ci kooku de mooy waaja daldi ne moom de saa yu ma ko nemmi koo rek fekk ko sama kanam mu mel ni aw xur wala sax ay xur manam lim bëgg wax mooy saa yu ko nemmi koo rek wala mu gëstu am biram rek dina ko fekk ci maqaama moo xam ne maqaama mu jafee xam la sëñ Mat Lamin mu ne am na it kenn ku bokk ci alawi yu ni ñu di ko wax Muhammad Abdurahman ibnu Salik ibnu Baaba kooku mas na maa wax ne ma Muhammadul Amin mi nga xam ne mooy doomi ahmad ibnu Badd di ab xalifaam nee na ko Sëriñ Tuubaa de ak welaayam da ko wëraleeg ay firnde yu wóor yoo xam ne ñëpp ci tek seen bët amul kenn ci gaay yu baax yi koo xam ne yaa ngi natable ci wilaay ak Serigne Touba radiallahu taala anhum Serigne Modou Lamine nee na Mouhamad ibnu Ahmad ibnu Ali al Yanqubi ñu gën koo xam ci Mouhamad Touba ngir li mu taxoo woon ak Serigne Touba dëkkoon ak moom jamono yi may nekk Touba daan ko jàngale xasida ak yu ni mel nee na Mouhamad mooma nettali na ko ne am na bis muy siyaare ji ay nijaayam nee na ba mu demee mu fekk fa ki nga xam ne kenn la woon ci jamonoom di ku bëgg yonent bi salallaahu alayhi wa sallam lool di ku bëgg sëriñ Tuubaa lool muy Mouhamad Fall ibnu Mouhamad ibnu Ahmad ibnu Aqil kooku mooy ki Mauritanien di woowee Babaha Mouhamad Touba nee na bim gisee Babaha moomu Babaha da koo yóbbante ci sëriñ Tuubaa ne ko soo demee na nga ma nuyul sëriñ bi bu baax te nga siyaaral ma ko te nga ne ko na ma may yéereem boo xam ne sol na ko ci yaramam ngir ma barkeeloo ko Mouhamad Touba nee na. bi ma ñëwee ba wax sëriñ Touba loolu ma babbaxaa yóbbante sëñ da caa bég lool daal di summi turki boppam bi mu jiitaloon jox ma ko ne ma gaawal dem jox ko ko Mouhamad Touba nee na ma daal di gaaw dellu ca babbaxaa moomu jox ko mbubb mi ma sëñ Touba joxoon ngir ma jox ko ko mu barkeeloo ko nee na bim ko ko joxee babbaxaa bég na ca mbégte moo xam ne foo ko takk weesu na ko daal di tàmbalee jël yére bi di ko fóon di ko raay ci yaramam di ko teg ci kanamam ngir barkeelu ci waaye bi nit ñi déggee xibaar boobu ak ni mu demee ñëpp dañoo daal di ñëw rek wut si ko di ko ñaan ci barkeelu boobu ko Serigne Touba jox ñii di ko ko àbbu ngir bëggoon cee barkeelu ba mujj nag jox joxalante boobu ñu doon àbbante yére bi mujj mbubb mi réer ba xamatuñ ci yan loxo la mujj. Mouhamad Touba nee na bi loolu amee ba baax damaa woowaat yónni ma ci Serigne Touba ne ma waxal ma Serigne bi ne ko barkeelu ba ma joxoon de nit ñi ñoo ma ko doon àbb di ci barkeelu ba mujj mu réer ci seeni loxo. ma bëggoon rek mu mayaat ma beneen barkeelu Mouhamad Touba nee na bi ma ñëwee wax ko sëriñ bi sëriñ bi da caa amal mbégte lool sax daal di may joxaat beneen barkeelu ne ma yët ko ko ba ma ko joxee it moom mu sant ca lool sant ma ci lool tamit tagg sëriñ Touba taggu yu ak di kaf ak man naan ma yow de da ngay taalibu sëriñ Touba rek moo tax mënuma laa wax dara te kon dinaa la wax dara daal ne ma ndax fi mu ne tawféex gi nga am ci doon taalibu sëriñ Touba dama la cee fiire sëñ Mat laa Lamine nee na ba tey ku ñuy wax Cheikh Ahmad Youra Mouhamad di doom ci ba baaxa moomu nee na dafa am ku ko mas di yedd ci li muy siyaare ji sëñ Tuubaa ci néew gu mu néew nee na ñu ko dee yedd Ahmad ne leen loolu de li ko waral mooy man de bu ma sañoon su ma jógee ngir siyaare ji sëriñ Tuubaa rek sama xol bii dara ci àdduna dootu ci nekk loolu moo tax mu far rek toog benn yoon di ko siyaare ci sama xol ndax bëggumaa dem ci sëriñ bi fekk ci sama xol daray àdduna gi ci loolu rek moo tax siyaare gi ma koy siyaare néew loolu nag di passeef bu yéeme te rëy lool mu ne nag giir googu Ahmadu moomu bokk ñu fonkoon sëriñ Tuubaa lañ te jàpp ko lool waaye ki ci gënoon a taqoo ak sëriñ Touba te gënoon a rafet ay seede ci moom mooy ku ñu wax ahmadou bnu Abdillah kooku moom xaritub sëriñ Touba benn bakkan la woon sëñ Mat Lamin mu ne fekk naa bis boo xam ne sax sëriñ bi da doon jàngalu ak xasida ñuy jàng ba àgg ci bayit wi sëriñ Touba di wax naan taqdimu Ahmad bni Abdillahi yaarifuhu gayru rabiyillaahi bi sëriñ bi déggee bayit woowu rek xelam dem ci xaritam boobu di ahmadou fi saasa rek sëriñ Touba daal ne nañ ko ko woole ñu daal di dem wooyi ko bi ahmadou ñëwee ñu nettali ko mbir mi ni demee ak ne ko sëriñ bi woowee ahmadu bég ca lool sant ca yàlla lool ci cër bu réy bii nga xam ne moom la ko xaadim rasul jox sëñ mat lamin nee na ahmadu mii nag mi ngi faatoo fii ci ndakaaru te moom sëñ mat lamin nee na siyaare na bàmmeelam fii ci Dakar ba tey mu ne am na ku ñëw xabba lab nu baayu bokk ci waa daymaan moom daa masa toog diir bu yàgg di ñaan yàlla wan ko maqaamam sëriñ Tuubaa am bés boo xam ne nag da caa dogo ne tey moom faw suñ borom dina ma ko waaye xabal la moomu daal nee na bisub keroog lañ ko wan mooy dañ ne ko mënu leen a xam dara ci sëriñ Tuubaa lu rek lii ngeen di gis ci jëmmam bu génnee dajeek nit ñi toog ak ñoom ñu siyaar ko ngeen ne sëriñ Tuubaa ngi nee wala mu génn jiite leen julli ngeen ne sëriñ baa ngi nee moo ñu jiite julli loolu rek daal mooy li ngeen mën a xam ci sëriñ Tuubaa waaye maqaamam dëgg-dëgg moom min lott na ci xam ko sëñ Mat mu ne nag lii xabal la wax de nuroo nag lool la uwaysul xarani waxoon ci sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam uwaysu moomu ci taabiin yi la bokkoon ndax fekkee ne jamono yonent bi waaye nag da toppatoo way juróom wu jigéen ba tax mënul woon a ñëw ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na junju mbiram lu bari akuk yéemeem ba waxoon na sax lenn ci saxaaba yi ku mel ne Seydina Omar ak Seydina Ali ne leen yéen di ngeen ko gis bi uwaysu gisee ak ñoom nag ci la leen waxee wax ju mel ne lii xabal la wax ci Sëriñ Tuubaa leen yéen de xamu dara ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul ab takk ñu ne ko ba ci abubakar sax Uways su ne leen ba ci abubakar sax xamul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu may ab takk loolu su wax nag jublu gi rek mooy ñu xam ne xaqiqatul muhammadiya ab jaam lot na ci xam ko sëñ Mad Lamin nee na xabal la mii nag mas naa nettali karaama gu yéeme lool goo xam ne gorom bi bàyyi soxnaam moo ko defoon nee na dafa am bés goroom boobu nekk ci ab xayma nekkoon fa ak doomam jigéen jooju nga xam ne mooy soxnaam moom xabal la mu doon ko seppal ay teen ci boppam loolu nag aadala joo xam ne xamoon nañ ko ci naar yi ngir seen karaw ni muy baaxoo di bare xabal la nee na ci jotaay bi goroom bi dafa jekki-jekki rek ne bërit génne ci xayma ba ñu dégg mu mel ne dafa dóor ab tànkam ci lu mel ne ak weñ te gisuñ foofa lenn luy nuru ak weñ waaye yëngu gi moom dégg nañ ko bu baax ñu gis ne tamit bi mu defee loolu tànk bi dafa damm mu daal di daanu fa saasa daal di xam bi mu demee ba ximmali ko nag ci lañ ko laaj li xew lu mu doon mu ne leen sunu borom damaa wan kenn ci wàllu yi koo xam ne nit ku ñuul la ma gis nu jéng ko moom laa bëggoon a xettali ci laa daal di dóoree sama tànk ci ab jéng loolu moo damm sama tànk bi ne ñu ndeke booba dafa gis sëriñ bu mag bi ak ni ko tubaab yi jàppee woon fas yéene ko yóbbu ngir tëj ko mu bëggoon a dox diggam ak tubaab yi sëñ Mat laa mel nee na tànkam boobu de ba ni mu faatoo wérul moom gorob xabal la boobu waaye lu jiitu muy faatu juñ junjoon na waa daymaan yi ne leen wàlli yu ma leen di wax de dina dellu si ak jàmm te dina ñëw fii ci Mauritanie te su boobaa di ngeen bari alal lool ak i xéewal sëñ Mat Lamin mu ne noonu mu ko waxee de noonu rekk la demee ndax bi sëriñ Tuubaa dellu see ba dem gànnaar waa daymaan yooyu ci la jël ñu baree baree bari ci ñoom muy ay mag di ay waxambaane ba ci xale yi sax ak jigéen ñi ñu di ko bindal ñii di ko bindal xam-xam ñii di ko bindal alxuraan Serigne Touba dëkkee di leen jox alal ju bari saa su ne alal joo xam ne kenn xamul nu mu toll ngir dimbali leen ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xeetam wi. te noonu ko waa daymaan yi daan liggéeyale it noonu la ko yeneen xeet yépp daan liggéeyale ci mbind mi muy ci nit ñu weex ñi ak ci nit ñu ñuul ñi donte nag waa daymaan yi ñoom ñoo gënoon a ràññeeku te gënoon a siiw mu ne kon gorob xabal boobu nga xam ne moom la suñu borom waroon loolu ba mu wax ko aw nitam yàlla na ko yàlla gërëm te fay ko jëfam sëriñ Mat Lamin nee na batay bokku na ci kilifa yu mag yi nga xamne def nañu séré ci Serigne Touba ku ñu wax Hamid ibnu Muhammad ibnu mahamda Baba ak ay doomi bayam muy Baba ak Ahmadu ñuy doomi Muhammad ak Hamid ñom ñëpp nak ñu ràññeeku won lañ ci bëgg Serigne Touba ak wax ci mom lu rafet serigne Mat Lamin mu jamono yi nga xamne ñi ngi nekk ci yéen Jolof ak Serigne Touba Serigne Touba mas na koo Dagana neena bima démé yàlla def ma fekk fa kenn ci ñom muy Hamid neena fekk boba xaamid moomu dafa gane si woon ku ñuy wax alaaji Bekay Seck foofu ca Dagana sëñ Mat Lamin nee na bi xaamid yégée ni ñëw naa Dagana daf maa daal di seet si keroog maak moom ñoo yendu ci néegub sama wayjur wu jigéen nee na keroog xaamid dama yendoo laaj ci mbirum sëriñ Touba lu ne rek mu laaj ma ko boole ci mbégte mu rëy lool moom am ci sëriñ bi sëñ Mat Lamin nee na ci noonu rek ci laa ko jox téere téereb Masaalikul Jinaan bi ma ko joxee mu sëgg ci téere bi daanaka siggiwaatul ba keroog ni muy di ñibbi kérok ba muy dem de nee na ma nekk gi sëriñ Tuubaa nekk fii ci jamono ji mooy wane ne yàlla sunu borom def na fi xéewal gu bare bare bare ci sunu jamono ji sëñ Madu Lamin mu ne mbiri naari gànnaar yi daal lépp lu neex a teqale fii waaye nag ku dem ci sama téere bi nga xam ne moom laa tuddee alminaxul miskiya fii xawaarixil mbakkiya dinaa fa def sama kem kàttan ci tudd lenn ci naar yi nga xam ne dañoo jébbaloon ci sëriñ bu mag bi incha allah sëriñ Madu Lamin nee na ba tey kenn ci kilifa yu màgg yi ñi nga xam ne def nañ ay seede yu rafet ci sëriñ Touba kii di sunu sëriñ tey sëriñub jullit ñi ci senegaal di soppeeb sëriñ Touba di ab jegeñaaleem di mbokkam ci diine ak ci deret muy alxaaji Malick si radiyallahu anhu moom de daan na wax ci sëriñ Touba naan amul kenn ci nun koo xam ne amoo juumte wala ñaawte foo xam ne yaa ngi koy tuubal sa borom ba mu des Cheikh Ahmadou Bamba moom de yàlla da ko dimbali rek mu jóg tegu ca yoon wa te mësu koo mooy mukk maanaam lim ci jublu mooy ñoom gaay yàlla yi ku ne am nga ay jaar-jaar yoo xam ne am na ci loo ci rëccu di ku tuubal sa borom ba mu des seriñ Touba moom Serigne Touba moom yàlla da koo taw feexal rek ba mu feeñee jamono ba ni mu làqoo jamono wenn doxin wi rek lees xam ci moom Sëñ Mat Lamin mu ne wax jii nag ñi ko nettali bari nañ lool man mii dégg naa ko ay yoon te ñu baree bari it dëppoo nañ ci jenn wax ji Sëriñ Mat Lamin mu ne sama mbokkum taalibe mii di Mouhamed Touba nettali na ma ne dafa am bis mu jaar Tiwaawan doon siyaare ji Alaaji Malik radiyallahu anhum nee na bi Maodo xamee ne ci sëriñ bu mag bi laa jëm nee na daf ne ma dama laa bëgg a yóbbante ay baat ci sëñ ba soo demee nanga ma ko nuyul bu baax te nga fàttalil ma ko suñ guddi googee nga xam ne keroog maag moom rek ñoo bokk ci benn néeg buñ fanaan foofee ca Ndar soo ko fàttalee ba mu fàttaleeku ko nanga ko wax ne ko kóllëre ga ma wóllërante woon ak moom keroog maa nga ca ba tey Mouhamad Touba nee na noonu rek la ma ko Alaaji Malik waxee waaye leeralu ma ca dara man it bi ma ñëwee ci Serigne Touba ma defee ko na mook ko waxee jottale ko yóbbante ba bi ma jottalee Serigne bi yóbbante bi Serigne Touba da caa bég lool mbég mu rëy sax ni ma toogee noonu ci kanam mu mel na kuy kaf ak man di xëcc samay nopp ak sama bakkan te naan ma Alaaji Malik de lim la wax mooy dëgg noonu rek la demee nee sëriñ bi wax na wax ju rafet ci alaaji Malick si radiallahu taala anhum ba tey kilifa gii ñuy wax xaadi ma jaxate kala di àttekat bu mag ba tey mbokkum sëriñ Touba di ab soppeem doonoon xaritu way juróom bu góor moom xaali ma jaxate nag jamono yi nga xam ne sëriñ Touba dafa toll ci di sàkku xam-xam da daan def fu mu gisanteeg sëriñ bi rek di ko cuq ci ay bayit ngir di xool fu àlliwaam toll ci wàllu naxwa ak bayaan nee na léeg-léeg bu sëriñ bi waxee dina ko defar bayit yi maanaam corriger ko léegi léeg du calaal dara ndax jub gum jub ba mujj sax xaalima jaxate ci boppam nangul sëriñ Touba ak rawam ci fànn googu ci la ko waxee ne ko léegi del indi may mokkal teñ bàyyi topp gi ak naan ko yow de doom yaa nekkoon sunu doom ñuy say baay waaye léegi nag yaay sunu baay ñuy say doom wala mu naan ko ñun de ñoo nekkoon sab sëriñ léegi nag mujj nañ di say donga suñ Mat Lamin mu ne doonte loolu xaalima jaxate daf ko daan wax ci anamuk kaf waaye loolu muy wax nag mooy lay dëgg ci moom te mooy la mu gëm am na sax bayit yu yéeme yu ma defoon ci Sëriñ Tuubaa min nii li ahmada bamba taariki naas yi al ilahi fa am saa sayidan naas maam xaalida ne wax jii de mi ngi bàyyikoo ci man xaadima jaxate kala jëm ci Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne daa fàtte lépp lu dul yàlla féeteeg moom ba far mujj di sangub nit ñëpp sëriñ Mat Lamin nee na kilifa gu mag ñu di ko wax al Cheikh Mouhamad al Fuutiyu mi nga xam ne mooy bàyyi kilifa googee ñuy wax Zunnun ak Ibnu Arabi ñu bokk ci kilifa yu mag yi toppoon Cheikh Saadu Abihi radiallahu anhum sëñ Mat Lamin nee na Sëriñ Tuubaa nee na ko mësumaa gisek Cheikh Ahmad al fouti yu moomu waaye daan na def ay bayit dimba ko yónnee nee na yónnee woon na ko sax xasiid ak sinie goo xam ne da cee tagg Sëriñ Tuubaa mi ngi ko tàmbalee woon ci ila man xabaahu llahu bil basti wal unsi wa xakkamahu fi aalami al wal insi mu ne bayit yi de maa ngi ko jëmalee ci xejjub yàlla bi nga xam ne yàlla may na ko lu ko soob ci mbindeef fi mu cay àttee na ma ko soobee muy ci nit ñi ak ci jinne yi sëriñ Mat Lamin nee na xasida gu yéeme la kilifa googu defaloon sëriñ bi waaye dama ko mokkalatul moo tax waaye ci biir xasida ga daal am na sax fu muy waxee naan fa subbu ala miskinikum al kaasi ne ko rikk waaye sottil ma ci sa desitu kaas yi ma di ko barkeeloo sëriñ Mat Lamin nee na loolu sax taxoon na Serigne Touba fu mu masaan a gis zunnun mi nga xamne moy domam da koy jox kaasub ataaya ne ko lolou de moy barkelu bi sa way jur don laaj neena zunnun mi nak bokku na ci way kat yi gëna yéme ci réew mi defon na diwan bo xamne sax daf ko jaglel rek tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak benen diwan bo xamne da ko jaglel tag kilifa yi diine yi rawatina nak Cheikhul khadim amna ci xasida go xamne sax yaa xillu kam zaara haazal baaba min maliki wa min wazirin wa min jinnin wa min malaki mu ne cey buntu sëriñ Tuubaa bi bariwul ci mbindeefi yàlla yi ñu fa taxawul de muy buur di baadoola wala muy ab jaraaf wala muy jinne wala malaaka ñëpp a fay ñëw ngir seen aajo fajo sëñ Mat Lamin nee na moom Zunnun mi def na xasida yu bare bare bare ci sëriñ Tuubaa muy kilifa gu mag te bokk ci ñi nga xam ne dañuy dégg ndey bokki ci waa kër Cheikh Saadu Abihi radiallahu taala anhum sëñ Mat Lamin nee na Zunnun moomu mi ngi làqoo fii ci Cees ñu denc ko foofa ci barabu cheikh ahmadou barou njegeen radiyallahu anhu mune man mi sax siyaare na bàmmeelam fofu ci ties alhamdullilah serigne Tayba Muhammad Ndumbe marsil di kilifa gu mag momit mom lañ la waxon ci benu téré bi néla mo julé ma mor Anta bi mu waccé serigne Mat ko serigne Tayba de dal na def fu massa gisé ak man rek day wax bayit wi وكم أب قد علا بابن زرا شرف kama alat bi rasulillahi adanaanu borom bayit woowu lay wax naan di nga gis léeg-léeg wayjur woo xam ne de doomam mooy tax mu am daraja yu kawe ni nga xamee ne àddinaan noonu la amee ay daraja yu kawe te lenn mayu ko ko lu dul li mu doon maami yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu sëriñ Tayba di wax nag da koy misaal ci sëriñ Tuubaa mi nga xam ne bi mu feeñee ci aw askanam da leen a yokk daraja yokk ko mbooleem ay mbokkam di ay bayam ak imamam maamam ba tey mu ne kilifa gu magga di serigne Abdoulaye Cissé jamal di kenn ci ñinga xamne xam nañ lu rafet rafet ci serigne Touba te pas-pas lol ci serigne bi amna bi sax am ñu tok ci jotaayam di waxtaan ba tuddu serigne Touba ci kanamam doon waxtaane li serigne Touba ne werdam wi mi ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ waxee ba aggu fofu rek am koy wax melni dal. day sik sak wala muy diingat ci loolu bi serigne wax ji dafa woo ne ko diw xanaa lu Cheikh Ahmad Tidiane daa wax ne lenn ci ay werdam mi ngi ko jëlee ci yonente sallallahu sallam moo ko ko sax nga gëm ko kooku ne ko aha kay sëñ Abdoulaye ne ko moo ne Cheikh Ahmad Tidiane de radiyallahu taala anhu day borom xam-xam buy jëfe xam-xamam ragal yàlla lool topp sunna ñu rafet njort ci moom gëm li mu wax te moo ne Cheikh Ahmadou Bamba mii de loolu képp lañ gis ci moom kat borom xam-xam la kuy jëfe xam-xamam la te ku ragal yàlla la ku topp sunna la it kon ana luy tee rafet njort gee ñu amoon ci Cheikh Ahmad Tidiane ba dëggal ko duñ ko am ci Cheikh Ahmadou Bamba mi dëggal li mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko jox wérdam bi bi sëñ Abdoulaye Cissé waxee loolu waa ji am ci kersa lool tontuwaatu yàlla na leen yàlla gërëm te taasuñ ci seen barke kon foofu la sëñ Mouhamadou Lamine Diop yamale téere bii di irwaaw nadim mu jeexalee ko ci xasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru Alhamdulillah wa kafa Dal di lii daal mooy li nga xam ne moom laa jot a teewlu te jot gi maye ko ma indi ko fii ci téere bi te dama koo segg bu baax a baax nag xam lu ne fa ma ca yam mayam ca waaye su ma indi woon li nga xam ne moom laa xam lépp ak li ma dégg lépp mën naa gën a yéeme lool waaye su boobaa nag mën na caa am yu ci wér ak yu ci wérul moo tax ma daal di yem sax def sama kéem kàttan ci tënk li nga xam ne moom wóor na ma ni lii lu wér la ma indi ko ci téere bi te loolu nag defuma ko lu dul rek ngir sàkku tuyaaba te sàkku tuyaaba rek la ab jullit war déngu saa su waaye li ma indi ci téere bi boo ko nattee ci li ma xam lépp te indiwuma ko dana sore lool daanaka day mel ne benn ak junni ni mu wutee rek te li ma xam ci Serigne Touba ni mu néewee day mel ne nga dem ci géej tànq fa ab toq ndox rek noonu lay toll kon sëriñ Touba géej la goo xam ne rek day mel ne moom sëñ Mate Lamine lam ci xam lu néew néew la mu ne waaye nag maa ngi ñaan yàlla sunu borom ci mbaaxam lu néew lii ma indi ci téere bii di Irwaa un Nadim min azbi hubbil xadim mu réyal ko lool te nangu ko te tasaare ko ba ñëpp jariñoo ko ndax yàlla kat lépp lu rëy fa moom rek loola mooy li am solo nee na téere bii nag moom sëñ Mat mi ngi ko tàmbalee ci njaareem ci bu mu mubaaraka foofa it la ko àggalee yàlla na yàlla nangu liggéey bi te dimbale nu te yëkkati suñu jëf te jéggal nu mboolem suñuy ñaawteef jéggal suñuy waajur te yërëm leen ci barkeb Cheikhul Xadim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim سيبقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليمين من الله رب الأرض سيبقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليمين